mooy lu ñeel mbirum Hamat Suzanne Camara sukkandiku nañ ci ay taskati xabaar yu wuute ñaar yu wax ni jamono ji jàpp nañu ko ba ñu ma nga ñu jëme ci commissariat central bu Dakar ci ndigalul procureur de la République moom Hamat Suzanne Camara mi bokk ci APR jiite woon wànqaas bi ëmb jàngalekat yi APR yi moom mi kon lañ daal di arrêté. waxaguñ nag motif tax ñaa koy jàpp daal ci fàttali moom benn plateau fële ca xam ne ñoo ne loolu lañ ko téye waaye daal sukkandiku nañ ci ñaari taskati xabaar yoo xam ne kon jàpp nañu ko ba jamono ji kon ma ngi jëmee ci ci ndigal procureur